auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal di sàkku ci yéen tamit ngeen ñaanal ñu di leen di bal ak ci tabaski gi ñu euh, di ñaan yàlla mu def ci ñun ñu yàgg euh, feete tabaski yàlla may ñu luñ ci def may ñu tamit taloo xel ak taloo gu wér-gu-yaram buñ koy mëna a ak njaboot gi yépp waaw gannaaw si loolu ma ñëw wax ci vidéo yi rek mais bi yoon nag euh, xam naa du ma wax ci histoire Salmon vidéo bii di ñëw xëy na ma wax ci Salmon Faye waaye dafa am benn urgence boo xam ne moo ñu dab mu jëm ci histoire bi ñu bind mu jëm ci histoire réew mi nga xam ne le grand professeur Iba Der Thiam moom moo dajale ay historiens yu mag yu bokk ci réew mi ngir ñu xalaataat ni ñuy jàngalee taarixu réew mi ñu defaraat ko loolu am na solo lool euh, waaye nag euh, li ma ciy njëkkee mooy di leen félicité ci liggéey bu réy bi ñu def ndax xam nga réew mi ñaari nit ñoo ko ñoo ko sos ñoo fi am histoire muy ceddo yi ak sëriñ si te ceddo yi ak sëriñ si woroowuñu ci ay jikko loolu na ko ñëpp xam ceddo yu baax yi fi newoon ak jullit ñi ñoo bokki jikko ba looloo waral sax ñu mën a jaxasoo di jëllante ay soxna loolu du tem bi waaye mën nañ ci wax lu baree bari kon ci réew mi dafa toll ci ñu war a retracer histoire ceddo yi waxaat ko ba mu leer ba nit ñi xam ceddo yi lan moo doonoon seeni valeur nit ñu baax ñi fi jaar di ay kilifa kilifay diine ñu waxtaan ci seen histoire retracer ko ba mu gën a leer nit ñi xam ñoom lan lañ daj pour diine ji taxaw kon yaakaar naa ne loolu commission yi bu ñu ci defee liggéey bu toll nii yoon la képp kuy doomu réew mi nga remercier leen jaajëfal leen ci seen liggéey bu mag bii ñu liggéey waaye nag xam nga ne liggéey bi dafa am ay secteur waaw dafa am ay secteur ñun nag sunu secteur bi nga xam ne ñun ay séeréer lañu dëkk fii ci région de Fatick di di ay gëstukat tamit ci wàllu histoire comme ni ko nit ñi di waxee waaye nag ñun ñoo boo ñun ñooy gëstukat yi gën a ndaw nag fii ci Sine ñun ñooy historiens yi gën a tuuti waaw moo tax xam naa ne Euh, danaa ñëw ak yéen nag ci partie bi nga xam ne moom la téere bi réservel histoire u Sine livre bi sax mi ngi nii gis ngeen ko livre bu am jëmm la wax dëgg yàlla rafet lool waaw mais livre bi boo ci ñëwee ci partie bi nga xam ne moo concerné le royaume du Sine euh, wax dëgg yàlla liñ ci wax xeeb nañ ko xeeb nañ ko waaw wax dëgg yàlla xeeb nañ ko parce que xam nga livre bi mi ngi def 752 pages 752 pages waaye histoire u Sine yaa ngi koy gis ci vingt 627 640 641 foofu rek ngay liir ci livre bi gis histoire u Sine waaw li ci des dañuy wax la Saalum te xam nga la Saalum ak la Sine presque benn la ñoo bokk ay réalité gelawaar yi ne fii mooy gelawaar yi nekk fële te dañoo bokk sax ay réalité bi ci Grand Farba ak yëpp ñoo ko bokk ay euh, Grand Jaraaf ak yooyu mais histoire u Sine ci boppam liñ ci wax ci ñetti page yi ma la ci la nekk loolu nag dama yaakaar ne xëy na euh, du ñàkk xam ci ñoom parce que histoire moom bu fekkee ne gistukat du taarix nga am na loo xamante ne nii euh, war nga koo mën a xam lu toll ni histoire bii nag dama yaakaar ne képp ku ci feeñ feeñ nga waaye kuñ ci réeral moom amaanaa dootoo gaaw a feeñ parce que objectif lii mooy histoire bi ñuy jàngale ci réew mi ñu dindi ko def ci histoire bii kon histoire bi ñepp war fexé euh liñ ci am ñu def ko ci ngir ëlëga tax du ñun ngir suñuy doom yi bu ñëwé xamné ñun kat wax dëgg yalla li ñuy def war nañu wala waruñu li ñuy def rafet na wala rafetul waaye loolu yaa ngi koy jilé ci say référence maam fii fi gis mu mel lu mu warta mel di doomu soxna wala muy doomu ceddo dafa xamul loolu mooy wax ji te lii dafa ñëw pour delloon ci suñu bopp kon dégg nañ ci kontaan nañ ci waaye nag histoire siin li ma ci war a rectifier moom fii wax dëgg yàlla maa ngi jégalu waaye bari na waaw bari na de te xam naa ne bu ngeen ñëwoon fii li ma leen di wax ñi fiy dund histoire xam ko boo leen laajee lii ma la wax lañ lay wax du am benn woroom loolu wax naa la ko commencé ko ci ñi nga xam ne nee nañ ay buur lañ te falu fii ci royaume di Siin ku ñuy wax Kuli Mbegaan Fay nee nañ buur la woon fii ci Siin Kuli Mbegaan de wax dëgg yàlla xam naa ne bu ngeen ñëwoon fii di laajte liste roi yi fi jaar liste yëpp ba niñ toll du ngeen ci gis turu Kuli Mbegaan du ngeen ko ci gis Kuli Mbegaan nag xaw ma fu ngeen jëli tur waaye nee ngeen buur la woon fii waaye Kuli Mbegaan nekk fu buur benn ci loolu ñaareel bi ñu ne Maari Nduur Papaye Mbegaan Nduur ñu ne buur la woon fii ci Siin cité ko ci les rois maari musul nekk buur fii maari dëkku fi sax lageem la dëkk loolu lañ bind waaye du lageem nag sax ma wax leen tur bi exactement mbudaay la dëkk mbudaay mi ngi nekk ci ginnaaw njeejeng foofu la maari dëkk maari mii papaay Mbégandour nag ñun séeréer si ñun ñoo ko xam parce que nit boo ko xamee surnom am nga koy wooy waaye doo ko wooyee turam dëgg yéen maari ngeen wax waaye ñun marga caac lañ koy wax li tax ñu koy wax mbarga caaj mooy rëbbkat la woon am na bañ rab bu ñuy wax caaj ci séeréer waaye xaw mu nu ñu koy waxee ci walla waaye a caaj lañ koy wax ci séeréer buñ ko jàppee moom bu ko jàppan du ko maye du ko jaay du ko neexale kenn da koy lekk moom da ko bëggoon léegi nag ñu naan ko maari acaac maari acaac mu amoon ci nag pouvoir bu ko yàlla mayoon ci rab boobu waaw léegi nag loolu moo taxoon Maari Acaac ba yag ñu nan ko marka Caac koku moy papa Mbégaan Ndour am na fi nak ay trace fi ci réew mi waye doon fi bour de trace am yaangi fi ñi wax sànq fo bo fa demee da nga fa fekk ben guy gu wax bak mari guyu mari mi ngi fi waye nak musu fe doon bour wala bok bu fekkente ne bour la wax ñi kan mo yaayam ci gelwar yi ndax fi ku sa yaay doon tukki gelwaar munoo falu sin kan moo yaayam ci gelwaar yi nañ ñu ko wax kon xëy na bu ñu dimbalee côté boobu xëy na dana mën a danañ ko xaw a mën a jéem a comprendre waaye maari nag bokkul ci buur yi moom wax dëgg yàlla maari bokk ci Mbégaan Ndour doomam moo fi falu di dixième roi di premier roi wu Saloum di dixième roi wu Sine waaw ñun de loolu lañ ci xam liste yi ma leen di jox nag di liste Félix Brigaut ñu publier ko 1962 boo ci demee doo ci gis ñaari tur yi liste Odias ñu prise ko ñu ñu publier ko cent 1925 au temps de Coumba Ndoffène fa def doo ci gis ñaari tur yi liste bii mujj nga xam ne historiens yi nekk fii liste boobu la ñuy ëpp ci li ñuy liggéey muy la liste dañuy bale bi am 57 rois yi doo ci gis ñaari tur yi kon ñun de wax dëgg yàlla ñaari tur yii daal jaaxal nañu ci buur yi lii daal jaaxal nañu moom wax dëgg yàlla xaw ma nag ndax da ngeen koy rectifier wala da ngeen koy génne wala nu ngeen waaye ñaari moom duñu fi ay buur. ñaar ñi moom duñu ay buur bi ci tegu mooy eh, wax nañ ci waagaan waagaan na ñaari wagan la am na waagaan ku basanjaan am na tening waaye ñi waagaan tening la ñuy wax waagaan tening ñoom nee nañu siino meew moo ko jur déedéet sino meew jurul waagaan waagaan tening jom, tening jom, moo jur waagaan mo tax sax ñu nan ko waganti ni ñi nan ko wagano massa ñi nan ko wagano ñongolor c'est la même personne kenn ki la waagaan boobu nag lingeer teniñ joob moo jur jur ko ak mbeur mu dëkkoon lax di bukar lax bobu sax yeen non ngeen wax non la waye nak rectifier len ko du siina meewu teniñ jom la wa bo mom xamna ne peut être njumte la njumte la ci euh xam nga euh loolu ni ma la koy retracé mooy Mansa Wally bimu fato faatoo Tassé Faye moo ko remplacé yéen ñi wax ci Kuli Mbegan moom bi mu Tassé Faye moo ko def une année ci nguur bi mu faatoo rakkam waagaan Tening Dione mooy waagaan bi ma leen di wax waagaan googu moo ko remplacé moom indi capital bi fi ci Njongoloor ah, waaw waaye ñaar ñi waaye Kuli Mbegan moom wax dëgg yàlla ñun xamuñu ko beneen bi ci tegu mooy eh, wax nañu ci la bataille de Somme. la bataille de Somme man li ma ci gëna kii mooy la bataille de Somme ni mu toll ci histoire ak ni mu riche ci histoire ñu bind ci juróom-ñaari ligne sept ligne lañ ci bind sept ligne juróom-ñaari ligne ku jël livre bi na ko xool di nga ko gis sept ligne foofu tamit aussi am na erreur la bataille de Somme le 16 lañ ñëw fanaan ci déegu sambam bi fii bët set le 17 juillet di xeex bi waaye du le 18 de le 16 lañ ñëw fanaan fii bët set le 17 juillet

Bandiokor ñi la fa ya fa jitu mo ngi joge won sombu ànd ak ay domam histoire bobu ñu xam nañ ko bo mom kenn duñu ko jagal <laughs> ba bi ci teggu moy ñu set ñaari dat yoy waye ñaar da du ci ben nak buñ ko mënon dindi dal mo gën wa bi ci dess moy fofu sax xamna lay laay ndax vidéo ba nga waye gudd waaye danaa wat ci histoire bi waxat ci ndax yemul fofu ndax euh, ñun suñu histoire boko doon duggal fi 100 pages mënu ko jël 100 pages ñun suñu histoire sin, boko doon duggal fi 100 pages yi mënu ko jël mënu ko ñun nak ay kat lañ am nañ suñu mag suñu baye suñu maam yu fi nek di ay kat yu mag ci histoire bu ngeen leen woowee ñun ñu jox leen ñi ñor bu ñëwee ñu jox leen ko ngeen duggal ko ci mo gën li ngeen def li moom wax deug yalla ñun rafetlu wuñ ko ñu ngi leen di féliciter nak ci seen liggéey bu rafet waye li mom ñu rafetlu wuñ ko benen bi ci tegu moy dafa am lu ñi di joom ba léegi mang ci bataille de Fandane moom fi muy teje dafa ne séeréer ci dañu bañ diini islam loolu lañ bind ci phrase bu mujj bi ngeen ko xolé phrase bi sax dama ko bindon mais fii ma tok ne yoruma fi phrase bi mais phrase bi bo demee ci taxi biñ def ci la bataille de Fandane ñom dañ ne séeréer ci dañu dañ doon xex diine diine lañ bañoon motax ñu xex ma ba jox war du loolu la bataille de Fandane du affaireu diine affaire de fayu la. bu munoo wax la bataille de Fandane te waxoo la surprise de Minongor parce que la surprise de Minongor avril 1867 moi voilà la bataille de juillet 1867 loolu moo ko waral Maba Jaxu dafa waroon a ñëw fii wala ñun ñu dem fa parce que surprise Minongor bi moo ko waral ngeen baal ma waaye loolu la waaye du cause religieuse c'est pas parce que c'est si dañoo bañ diine moo tax ñuy xeex Fandane déedéet du loolu du loolu de ndax am na ñu fi ñëw avant loolu di ay julit nek ci biir siin di dund sen diine nek fi buma ma ci côté bobu ngeen xamne ne séeréer si ñoo bëgg diine dañoo mandu won nak kenn du len forcer ci dara ndax ñun yag nañu xex diine waye xex bi la bataille de Fandane laaj leen ñi xam histoire la cause principale de la bataille de Fandane c'est la surprise de minongor lolu moy cause bi ci gàttal waaw xam nga ne histoire Sénégal boo ko dee wax ba dugg ci këru diine yi munoo wax histoire Serigne Touba ba mu jeex te waxoo Buur Sine Coumba fenn ndax bindkat yu mag yi nga xam ne ñoo bind histoire Serigne Touba ñu ci bëri boo ca demee da nga fa fekk page bu ñu réserver Coumba Ndoffène ci sedd bi mu seede woon Serigne Touba kon munoo wax mouridisme ba mu jeex te waxoo Buur Sine te waxoo sin munta nekk munta nekk munoo wax histoire Seydina Isa ruhullahi ba mu jeex te waxoo ko ndofen man ta nek munul ne kon ñun dañu bok ci ceddo gi d'abord rafet ci lool ñew yalla boole ñok nitu diine yi fi nekkon ñu and ak ñom and gi rafet lool kon ñun boy wax diine fi ci réew mi di nga ci boole séeréer si boy wax histoire ceddo fi ci réew mi di nga ci boole séeréer si loolu la yalla dogal dana am nak yeneen vidéo yu ma defaat ñu jëmale ko ci livre bi soog a ñëw yeggale leen histoire mon fay ndax defal naa leen San Mon Fay 1 ak San Mon Fay 2 waaye noonu laa koy jàppee comme ni ma leen ko waxee woon mbokk yi ngeen baal ma ci lii ma wax jubluwuma ci lenn dama bëgg rek euh, nit ku nekk ni mu toll ci réew mi ñu jox ko loola nit ku nekk fi cëram toll ci réew mi ñu jox ko loola buñ ko defee rek jàmm dana am te séeréer nitu jàmm la ñun dañoo doon dañoo doon xeet boo xam ne ay nitu jàmm lañ ñu lépp lu dul jàmm rek séeréer xamul loolu ngeen baal ma xam naa ba fan yi bu ko yàlla dogalee danañ ñëwaat ci yeneen vidéo bu ñu ko yàlla bu ñu yàlla maye kattan ak fekkee ak tal yàlla ñu ko yàlla defal ba ñu mën a gisante waat ci jàmm ak salaam waa koy jërëjëf kay naak ngonin man fa latir bilay ngonin wa gadun yakal